وسلم عبدا على حبيبك خير الخلق كلهم وصليا يا إلهي وجزيا أبدا عنا محمدا المختار في القدم وصليا يا إلهي وجزيا أبدا عنا الدم وصليا يا إلهي وجزيا أبدا عنا محمدا المختار في القدم مختار في القدم وصلي يا إلهي واجزي العبد عنا محمدا المختار في القدم ولطيبة لا تقوم سواها عن تيبة لا تهم سواها فذاك التصحاب رؤية داها دار الحبيب قلوبنا تهوى العينين وهو جلال ترهم دار الحبيب قلوبنا دعواها دار الحبيب قلوبنا تهواها هي منية الباد مفتاح الهدى فانهد إليهم واغتنم للقاها نفسة في الحياة وعي الذي ترعى والمسك من نفقتها والمسك إلا جيفة بدماها دار الحبيب Eh, sëriñ bi ñu ngi lay nuyu di la wàccee sa wàccuwaay sa jataay di ñaari jataay te jataayu wilaayatu ak walaayatu ndax ci xadara boobu nga toog al wilaayatu maalikul may muunu man maladuna amaanatul xutbil aarifina taqaddasat waaw waaw sa maam donn gi mu donn si na Ahmad Tijaani donn ko ci nelaw bëccëgu ndax kàmm la taxaw fee ca njarnde wax ni lépp lu cheikh am yàlla xamal na ni donn naa ko ne nag dinaa yónnee Fass ñu jox ma asraaru cheikh yëpp te fe fekk cheikh ba muy génn àdduna joxe nañ digal na lépp luy ay bindam ak ay téeram nañ ko tëj ba mu joxe ci ordre waaw ah, mag ña nekkoon ca Fass def ay istixaara ñu xamal leen ni loolu yëpp taalibeem bi nga xam ne moom la ñuy wax Malick moo ko moom waaw sa wéjoo nettal la ñooñu ko ba tey al ne ba muy yónnee ndaw la mu yónnee woon Mouhamadul Muxtaar al Wadaani al Zakira mm-hmm. moom la yónnee faas mu dem Fass fekk nee na sa maam béyoon na ñeenti lu toll ñeenti kilomètre la amoon ca Njaande ci tool bay ci ba am te deux cent mille ci jamono yooyu te jamono yooyu deux cent mille ay millions yu dul jeex la ñëpp na Seydi Hadji Malick day jënd ji ndar mu dajale ko lépp ci enveloppe yónnee Fass ci Seydina Ahmad Tijani ne addiyaam la moo tax ba mu ñëwee waa njabootu cheikh nag kii nag mooy doonu cheikh ndax lu toll nii ci alal ku ko mën a jox ay nit ci addiya kooku xam nga ni yow li nga doon xam nga ko mu mel ni loolu lañu dajale ci ay gaal teg ko ci gaal indil Maodo ba ci njaande Mouhamadul Mokhtar nee na keroog ba ma ñëwee Maodo ne ah kon nag ñu ubbi maali xol li nga xam ne mooy yëf yi mu ne ko danga may jox garanti ne duma alko ndax asraaru cheikh am na ci loo xam ne boo àggul martaba boo ko xoolee balaa ngaa dee di nga génn daayiratul iman Seydi Hadji Malick ne ko jox naa la ki ndigal mu ne ko du doy da ngay bind këyit signé ko tamponné ko ma def sama poche. Mhm. mu bind këyit tamponné signé mu def ci poche moo tax asraaru tarixa bi bokkul la kunaasu cheikh yéen li ngeen doon asraaru cheikh ngeen doon mais doonu leen kunaasu tarixa bi sédagement li li mu doon bëccëg la ko doon sëñ cheikh nee na haza rasulullah yawma nuzulihi mutaxallidan bil xaqi wal buxaani mutabasiman faraan bi sax fi malaayiki doo ko fekk ci benn téere tarixa bi mhm. nee laboratoire bi Seydi Hadji Malick liggéey Seydina Cheikh waaw nee na ba Seydi Hadji Malick liggéey Seydina Cheikh boo demee loolu fan nga koy fekk mais amul benn téere tarixa bi boo fi fekk kon yéen li ngay doon wilaaya la wa raaytu annaka li risalati xaamilun wa alimtu annaka baxdu siru amaani li tax doomu aadama am tedd nga am ngën a li siru amaana boobu moom la Seydina Cheikh doon ci yonent yàlla Muhammad te loolu sa maam moo ko doon waaw al walaayatu la alwayaatu lillahi alxaq kooku moom man ci alquran kooku nag njom la ak ngarmi njom ak ngarmi boobu moom la samaam liggéey ba am walaayatu wilaayatu ak walaayatu mooy sa jataayu taytu ñun kon nag jataayu fajuk aajo lay doon incha allahu taala te sa bàyyi da daan wax ne sa sa maam Sédage Malick boo ñëwee ne ko damay dama damaa bëgg a tardé mu fël sa loxo ne kër Sédage Malick nit du fi tardé nit dina fi guddee mais du fi tardé taalibe nee na boobu ay train section rek moo am 6 heures bëgg a jot ma tàllal ko loxo ni ko góor gi ñaanal ma ma taw balaa ma tardé mu fël sama loxo na ma kër sédage nit du fi tardé nit dina fi guddee mais nit du fi tardé ah nee ma toog rek jàpp sama njàmbur ca saal ba ba ma toogee ba jamono mu mel ni daf ma fàtte ba timis passé mu ñëw fekkaat ma toog ci saal bi mu ne ma demagoo ma dem ko ah nu may demee ne ko kon ma ñaanal la nga ñëw dem man sama xel ah fu may dem ah ba ne 6 la nee na mu ñaan balaa ma àgg sa kër bàyyi perper nee na gis benn jib bu ñoo tax taxaw sama kanam ak ay làppam ne ma góor gi foo jëm Bambey mu ne man de Bambey laa jëm mu ne ko kon nag duggal nee na maa moom ñu ànd dem ba Bambey ci marché bi laa ko waxoon mu ne ma fan nga dëkk ci Bambey mu yóbbu ma ba ca bunt kër ma génnee 3000 bëgg ko jox mu ne ma ah def naa ko addee góor gi ñaanal ma rek ma ne ko kii de Seydi Hadj Malick la wax nga dëgg de si këram kenn du fa tardé حيا وميتا يؤم الكل جدواه الحاج منصور نانا بايم شيخ سيد الحاج مالك هو الممد لنا من فيض نعمته حيا وميتا يؤم الكل جدواه ci turu décentralisation bi nga xam ni COSCAS la moo yore affaire organisation gàmmu gi jëlee ko ci ndigalu responsable moral bi sëñ Babacar Sy bu sëñ Babacar Sy bu sëñ Aboubacar Pape Malick Sy moom mu jëlee ndigalam ci xalifa bi sëñ Babacar Sy maam Mansour bu ko defee ñu xool daayira yi naka lañ leen di ci ñu def ay convergence di gën a joxe seen bopp parce que waa Kër Seydi Hadji Malick euh, li ma benn mbokku taalibe Thiaw bi nga xam ne taalibe ci ci xalif bi nee na ñun xalif bi daf ñu tànnaloon mayo ñu sol ko bu yàgg te muy maye Seydi Hadji Malick ba ñu jëlee suñu t-shirt def ci ay sëriñ mu ne ah seen t-shirt yi daal dafa xaw a xumb dinaa leen utal benn nee na indi benn t-shirt def ci photo Seydi Hadji Malick ne bii laa leen jox kon nag woo na njaboot gi yëpp moom xalifa bi ñu liggéey ci turu maamam fu njaboot nekk na jox mbokk taalibeem loxoom amul ni kii moom a jox wérd amul kii moom a jox ñun ñëpp benn kilifa lañu ñu amooy Seydi Hadji ñu bëgg njaboot yëpp joxe seen loxo ñu liggéeyal Seydi Hadji Malick parce que kilifa bu la bu la defalee lu kenn defalul njabootam Seydi Hadji Malick li mu defal njabootam benn nitu yàlla mosul yóbbaale giw ay njabootam ba àgg ak ah, fa Seydi Hadji Malick àgg njabootam ah, bu nekk ngeen jàng ko seen ñaanu tarix seen ñaari wasifa waaw ah. alxeq jamaati bi haulaay bi xëratil axyaari lan bi yaay te laata ma koy tudd tudd na ñeent fukki magu yàlla ak benn ñoo xam ne ñoo dooru noonu nuurul mu tëlsam waaw ah, ci du cheikh xam xam la ja jaddi liqaay yi ñeent fukki magu yàlla ak benn yoo xam ne ñoo doon nuurul mu talsam si dajman leen sama njaboot yàlla na ko yàlla dëggal ci ñii moom aj na njabootam ci ñooñu ñoo doon nuurul mu talsam waaw kooku mën nga ko fay sa kilifa kon kañ li nga mën mooy nga ñu joxante ko ci turam ñu liggéeyal ko parce que dëgg njëriñam lu mu bari bari buñ ko bu buñ ko organisé woon njëriñ la du génn kon nag loolu mooy seen jotaay si loolu lañ doon ubbee rek salaamualeykum wa rahmatullahi wa barakatu foofu day metti na bismillahi rahmani rahim alhamdulilahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallama ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa ashaabihi wa xulafaihi ajmain wa radiyallahu an cheikhina tijaani wa jamici alihi wa jamici ahli tariqatihi wa jamici talamidi wa radiyallahu an ilwalidain mbokk yi asalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu Seydi Ahmadine bu Cheikh Alhaaji Abdoul Aziz Al Amin bu Seydi Aboubacar Sy bu Cheikh Seydi Alhaaji Malick radiallahu anhu ñu ngi lay nuyu di la ziyaar di la ndokkeel tabarakallahu di nuyu bu baax bokki Mbàkke yéen de tey seen burdu bi populaire yépp amu ci benn bu mel nii lii moom dafa yéeme waaw xam naa ne Seydi Hadj Malick beral na leen loxo bu wér dëgg dëgg dëgg Mbàkke waaye nag àll bii dafa doon àll bu bari gaynde àll boo xam ne da yoor ndu nii maam maam maam Cheikh Anta nekk ci sa wet ci Daaru Salaam nga ne nii jàkkarloog Cheikh Al Khadim faf nag ñu tuddee bés bi dégg nga soxna Maymuna bu sëriñ Abdu borom dër bi nga xam ne xalifaam bi nekk nii di ma dégg ci Daaru Rahman di sama genn wàll mooy sëriñ sëriñ Moodu Habib Mbacke wax dëgg yàlla eh, mbir mi dafa rëy te man dama kontaan wante mbàkke nii rek la mën a mel ndax mag ñi fi Seydi Hadj Malick sampoon ñu taxaw fi taxawaay bu rafet moo tax yëf yi mel nii muy maam Njàmme Njaay mu mag ma di borom baatin ak alaaji atumaan Njaay bu alaaj bu wëy juru alaaji Omar Njaay atumaan bu cheikhul xawmi cheikh alhaj mansour radiallahu taala an ak mag ñu baax ñi fi kon ñëpp góor gi Mor Anta Ndiaye ak ak ak kilifa yëpp macha allah muqaddam xaddami ñoom ñëpp tax na wax dëgg yàlla eh, du mën a mel nu dul nii kon mbokk yi ñu ngi leen di nuyu di leen ziyaar di leen ndokkeel du nuyu imam an bu baax di ko ziyaar kàddoom rafet na di nuyu bu baax di ziyaar monsieur le maire sëriñ Abdou Ndaw Mbakke Ndaw euh, sa wayjur wu tedd wi yelloo na nii yelloo na ko lool ndax sa taxawaay yi itam dëkk bi bëgg nañ la wormaal nañ la teyit jox nga leen jox nga leen li nga man ak li nga xam loolu yàlla na yàgg ñu ngi lay nuyu di leen ndokkeel bu baax fa tabarakallahu moom sama jarbaal la ndax sëñ ndax sëñ sëñ Modou Habib di sama genn wàll euh, tabarakallahu sëñ Modou Mamadou gay bii fi mu daaneele ñu war a jëm ci sëriñ bi du wax lu rëy loolu mu wax ci ndono bi Seydil xaj Malick jot ci Cheikh Ibn Tidiane radiallahu anhu ki ko dëggal wéral ko mooy Cheikh El Hadj Omarul Fouti radiallahu taala anhu suñu mbër moomu nga xam ne ku ko am dootoo wax dara Cheikh Omar ayatun min ayatillahi ayatun min ayatillahi mag ñi ña ngi ko fekk Hoore Fonde fii Hoore Fonde aminul xawmi rafaqahu hunaka alqa asa amin wa tay saari oustaz oustaz oustaz Diène moo def xasida boobu ci maam Alpha ma yor wele radiallahu ba ko fa mag ña fekkee def naa ci téere ci maam Alpha bi ma nekkee gaaya ba ko fa mag ñi fekkee ci njiitu maam Alpha mu ànd ak juróomi nit góor gi euh, yokk Moussa Gueye Samba Yali Niass dégg nga ay mag ba ñu juróom ñu ànd ak moom bañ accès ak maam alfa Cheikh Omar dafa dugg ak ñoom ci biir woo maam Alpha yëkkati benn leetar jox ko booba Seydi Hadj Malick ñëwagul jamono mu adressé ko alhaaji Malick Sy bind ca kaw leetar ba loolu def ci biir ismulaay laasam beeg ndénkaane Cheikh na Tidiane bi lem ba mu jekk mu teg nga ko soo demee denc ko bu boromam ñëwee nga jox ko sama programme yëpp moo koy àggale kon nga yëg ne fa tabarakallahu eh, ndénkaane bu am solo la agsi na waaye nag bu ñëwee ba fii it sa loxo way jur wu tedd baa ngi ci ak sa maam yu baax yi loolu yàlla na yàgg eh, bokki Mbàkke ñu ngi leen di nuyu di leen ziar di leen ndokkeel di leen béggee nag surtout yéen xale Mbàkke yi ngeen gën a dollee dëgëral seen taxawaay yàlla may na leen te day gën a yaatu yàlla ndax sagal ngeen Mbàkke sagal ngeen maam yu baax yi sagal way jur yi ci seen taxawaay bii te alaaji mbay donde dafa wax ne sagal sa maam loolu aayul kuy doom ju baax xam nga loolu te soo nawee maami jaambur te yow sa maam gën ko farlu nga wan sa maam ni mu farloo day tax nga gën di suturlu te maam yu baax yi ci réew mi xam ngeen na am nañu farlu kon seen taxawaay bii yéen waa Mbàkke tabarakallahu ngeen ànd ko góor jigéen mag ndaw murit tijaan ñëpp ànd benn bopp yëkkatindoo xam nga ni lii dara daqu dara daqu lii Cheikh Al lii la bëgg Seydi El Hadj lii la bëgg Cheikh El Hadj Abdoul mi nga xam ne yàllaa ko may mu nekk maftuhu alayhi bu mag e, jël sa waajur jël baatu tiwaanu yëpp teg ci loxoom muy Sëriñ Abdoul Aziz Al Amin ñëw na fii ci Touba lii ma def ko mu neexul tampi waaye neex na Cheikh Al neex na Seydil xaj malik neex na Cheikh Alioune Tidiane neex na Rasulullah neex na borom bi kon nag lii tamit dëgg-dëgg neex na neex na Seydil Hadji Malick neex na Cheikh Al neex na rasulullahi neex na borom bi subhanahu wa taala moo tax seen ànd bi yàlla na yokk yàlla na gën a dëgër yàlla na gën a rafet ñu ngi ciy ndokkeel nag njabooti Cheikh Al Khadim yëpp bàyyiwunu kenn bàyyiwunu kenn gannaaw bi sëriñ bi dikkee indi baatu Tiwaawoon indi baatu Cheikh Sidi Aboubacar si ibnu Cheikh Mouhamadul Mansour ibnu Seydil Hadji Malick di xalifa général Tidjani yi tabarakallahu baat bi fekk fii kaddug fa tabarakallahu way juram di Cheikh Mountakha Mouhamadul Bachir bu Cheikh al Khadim lépp rafet kon nag tabarakallahu te xam ngeen Cheikh Mountakha léppam islaahu zaatil bayni loolu am solo lu rafet la lu tegu ci yoon la kon yàlla na yàlla barkeel bég nañu rafet na yëf yi alaa na kon nag yal na ko yàlla nangu te barkeel ko ñi ngi yemale foofu sunu kàddu nag logoon nañ nag lu bari mbàkke moom moom sunu mbàkke la logoon nañ lu bari waaye log bi li ñu log lépp dañ koy jox sëriñ bi ndax moom moom bésam ñun ñun tiim lañ rek bu waxtu jotee ngay tiim bu ndox ñëwee da ngay arrêté tiim bi tiim bi day yàqu ñun nag dañ doon tiim ndox maa ngi nii kii mooy Seydil Hadji malik ku xam tuuti xaqiqa da nga wax danga xool xam ne ki kii toog nii mooy Seydil Hadji Malick kii toog nii mooy Cheikh Al Khadim kon nag fa tabarakallahu dañuy yemale foofu jël kàddu gi jox ko mu le nga jotal ñu sunu nuyoo sa wayjur wu tedd wa soxna Maymouna nga jotul ñu nuyoo fa tabarakallahu sa najaay ju baax sa wéjur wu tedd bi Cheikh Mamadul Habib ku am taxawaay la ku am taxawaay la ku mënit islaahu saatil bayni la ku yiw ku sell la ndax eh, eh, eh, woyofam bëggam diineem fonk xadara bi fonk kër Seydi Hadji Malick loolu te man xam naa ci dara kon nag sa toogaay bi dafa rafet ba noppi nag ñu tuddee ko sa wéyjur loolu rafet na yàlla na ko yàlla nangu te barkeel ko ñu ngi nuyu bokk yépp di nuyu xarit yépp di nuyu am ji jàmm yëpp asalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. بقوم تماما مكسبا gummi te gummi mi ajab tamay gulal ko xiina te gulal mbalax ونشرع المصطفى إلى الانتفاع إلى المصطفى إلى فإلى المصطفى يومي نجمع وكسم العتيقني وإنه سمع شفجر دينان تداس قدر دينان تداس قدر دينان تداس قدر دينان تداس قدر

أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على النبي المصطفى وآله وصحبه أهل الصفا wa man tabiahum bi ixsaanin ila yowmi alwafa wa rida allahi alxaalidi an cheykhina wa wasilatina ila rabbina mawlana ahmad bna mohammadin alsalimi tijaani wa rida almalik alaalaami an cheykhina wa wasilatina ila rabbina mawlana alxaaj malik alayhi rida almalik wa an saa'iri xulafaaihi wa man tabiahum bi ixsaanin ila yowmi ddin saaxib alfadila alimam alxaaji cerno yaxya aan mumasilan li fadilati alimam alxaaji abdullahi buso siyaadata umdati madinati Mbàkke Cheikh Abdou Mbàkke Ndaw saaxib alfadila alallaama alxaaji al ustaaz Abdullahi Bay asxaab alsamaaxati wa siyaadati walfadila أيها الحضور الكريم بالأصالة عن نفسي ونيابة عن صاحب السماحة والمشيخة الخليفة العام للطائفة التجانية الشيخ سيدي أبي بكر سي منصور وباسم أخيه الشيخ محمد المنتقى Bachir Mbacke wa bismi kaafatil usratil malikiyati tiwaawaniya nuxayikum bi taxiyatin tayibatin mubaaraka wa naqulu lakum assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu mbokk yi fi daje ngi leen di nuyu ci nuyoo ba gën a tedd te mooy asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa ñuy jiital ci nuyoo bi fadilatul imaam xaaji abdallahi buso te cerno yaxya wuutu ko fi ak mboolem imaam yi fi nekk di nuyu monsieur le maire ah nee na sama jaam la ma ko dinaa ko nangu waaye tabaarakallaahu boole ci sama kal la xam naa damay yóbbaale sant wi rek incha allah muy le maire Cheikh Abdoul Ndaw mi nga xam ni ah, mooy boroom jataay bi nag ndax daf fi tooge ñaari casquette tooge fi ñaari tànk tànk bu njëkk bi mooy doon gi mu doon jëwrinu dëkk bi waaye tànku ñaareel bi nag mooy lii nu daje di ko def tey alalam la ñu tuddee ko way juram di soxna may mu sëriñ abdullahi borom dër bi ñu ñaanal ko yàlla yàlla yàlla dëgëral ko te yàlla yàggal taxawaayam mu nuyu ko nuyu ci nuyu bi ñu koy nuyu mboolem sunu njabootu maam cheikhul xadim radiallahu anhu ah ci sunu làmmiñ lañ koy waxe waaye ci suñu làmmiñu kilifa di suñu wéyjur di sëriñ Babacar si Mouhamadunil Mansour bi xalif général des Tijanes ñu nuyu ko nuyu mbooloo mi fi teew yépp nuyu tabaarakallaahu sunu wejur wi toog ci sunu ndeyjoor mu di ustaaz Abdullahi Mbaye mu ànd ñëw ci ndigalu kilifa yi ngir fekke ci tey ji suñu burdu wayjur suñu burdu maam cheikh alxaaji malik si radiallahu anhu mu amele ko fan ci suñu ëttu maam cheikhul xadim radiallahu anhu mu mel ni ko nuurun ala nuur la leer ci kaw leer la ñu di leen ci ndokkeel bu baax rawatina nag ñi nga xam ni ñoo am pas-pasu taxawal lii muy comité d'organisation bi ak mbokk yu baax yi nu ko àndal sëriñ Sidi Diaw ak tabaarakallaahu suñu mbokk mi di xaaji Babacar Ñaam ñu nuyu sunu wëllëre di xaaji Mouhamadou gay mi nga xam ne tey moo fi représenté commission décentralisation bi nga xam ni suñu mbokk alxaaji Souleymane Bili Pay moo ko jiite ñu bokk nag euh, séq li ñuy tuddee COSCAS muy comité d'organisation au service du xalifa Ababacar si ka nekk ca bopp di président Mame Ousmane Samb nu wéyal it sunu ndigalu kilifa sunu wéyjul sëriñ Pape Malick Sy mi nga xam ni mooy port paralu xalifa bi di doom ci sëriñ Babacar Sy radiallahu anhu yàlla na yàlla guddal seen fan te may leen wér moo rakkam Seydil Hadji Malick Sy Abdoul Aziz di sëriñ Maodo Sy Dabakh yal na yàlla guddal fanam te may ko wér mu mel ni nag tabaarakallaahu jataay bi yàgg na li nu fi dajale woon tey mooy rekk ñëw saafonte ak yéen fekke it yiw wu màgg wi nga xam ni moom la nu fi am na tey te ki tax nag ñu daje fi tey mooy yonent bi sallallahu alayhi wa mi nga xam ni nag mooy làmp bi leeral làmp yi seen maam Cheikh Alxaaji Malik dafa wax ni law lam yalux fi fadail kawni talaatuhu tabqa albariyatu fi zalmaai allahu nee bu ceeñeeru leeru yonent bi fenkul woon ci kaw suuf nee na ñun ñépp lëndëm la ñuy dëkkee ceeñeer googu nag mooy leer di leer di leer sunu maam yu tedd yu baax yi jël ko ku nekk ak na nga ca tollu ak lala sa cofeel ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jaral maa ngi koy wax rek démb ma ni boo xoolee suñu maam yu baax yi dañu séddoo seen cofeel ci yonent bi ku nekk ak na jël suñu maam ji di cheikhul xadim radiallahu anhu ni man sama cofeel ci yonent bi def naa ko xidma te mooy ma fas yéene rek nekk ci suufu yonent bi lu mu bëgg ci suba ak ngoon ma yëg ko danaa ci taxaw màndarga cofeel la ci yonent bi suñu maam Cheikh Alxaaji Malik Si radiyallahu anhu wax ni man naa jël roy yonent bi sallallahu alayhi wa sallam naa jël sopp yonent bi naa jëlit fexe fu mu tegoon tànkam ma teg ko fa ndax moo waxoon ni yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mën na maa gën a rëy tànk mën na maa gën a yaatule jéego mu ni waaye nag jéegoom du moy sama jéego du moy jéegoom ndax fa mu tegoon tànkam rek fa laa koy teg mu mel ni looloo waral mu indi gàmmu moom Cheikh Alxaaji Malik woo ci nag képp kuy wax rek ashhadu an laa ilaha illallah ndax bu fekkoon ni bés ba boppam rek la doon wut amaana ñi mu njaboote rek ñoo ci yéeg seen bopp waaye li mu bëggoon mooy képp kuy wax ashhadu an laa ilaha illallah nga xam ni gàmmu sa mbir la waaw nga xam ni gàmmu bu jotee bu nu ko taxawalee fii ci Mbàkke moomale ko cheikhul xadim yell yell na bu nu ko taxawalee ca Touba moomale ko cheikhul xadim yell na bu ñu ko taxawalee ca Tiwaawan moomale ko cheikhul xadim yell na yeneen bi ku taqoo woon di mbég di bég la boo ko séenee rek bëñam ngay njëkk seen waaw nit ñi ñeme ko nekkul woon kuy ñëkkal kanamam ba boo ko gisee ragal ko waaw waaw ah, dama dem ci benn bëtig di jënd euh, fekk fa benn ndaw mi ngi toog waaye mi ngi xool mi ngi mi ngi ñàngal kanam gi ma dugg si rek gis na mu ñàngalee kanam gi ma ne ko yow de du ma jënd dara ci yow waaw ah. mu ne ah, lu tax ma ne ko ah yow nit di jaay li nga bëgg di ko jaay bëgg nit ñi di ko jënd ngay xool ngay ngay ngay ñëkkal kanam xanaa nga ree tuuti sax waaw tabaarakallaahu yóbbaale ko ca eh, atelier ba loolu mooy sensu dundal guddi yonent bi sallallahu alayhi wa nga jël ci bu ne jikko ni yonent bi daan tooge ni yonent bi daan waxe ni mu daan nekkee ki soxnaam seede yi ñu seede ci moom nga xam ne sayyidatuna Aïcha bañ ko waxee ni ko boo doon qualifier yonent bi ci benn baat lan la mu ni quraanun yamshi ala al ard yeneent bi daal alquran juy dox la aaye boo laal ci moom rek wan na la ko ci dundam waaw ba ci biir këram boroom kër ni mu war a nekkee ay soxnaam ni mu war a nekkee njabootam ni ci yonent bi daan def nga xam ni bu xëyee moom yonent bi gis ni jigéen ñi demaguñu marché mu ne xam naa dañoo sonn bi xaaral ma demal leen marché moom sang bi dem ci marché bi waxaale jënd yi muy jënd ndugg mi yëpp ñëw teg ñëwaat toog bu xaaree tuuti jigéen ñi juguñu mu ne ah dafa mel ni danoo sonn de bàyyi leen ñu nelaw rifkan bil xawaarir waaw daal di jël matt yi dajale commencé boyal bu nu jugul mu daldi jël ndox mi sotti leen ci cin li mu tàmbalee baax ba ba ñuy yeewu moom yonent bi noonu la daan dëkkee ñoom léegi-léegi mu ne ah dafa mel ni yére yi ci kër gi tilim na ñu ne waaw mu ne ah déet bàyyi leen ma dem wuti ndox daldi dem rooti indi sotti jël yéreem jël yére njabootam dugal soob léegi-léegi ñu ne ko ah déet góor gi bàyyil nag nu yeggale li ci des waaw ndeysaan nga yóbbaale loolu ca école ba yóbbaale ko ci entreprise ba yóbbaale ko ba ca terrain football ba sax ndax ne Serigne Cheikh Tidiane Sy Al Maktoum la mu waxoon daf ni yàlla li mu bëgg mooy intimité bi nga am ak moom fooy dem nga yóbbaale ko waaw na nga na la ko jaral ci sa club de football sax booy dem ca terrain ba lañ ko yóbbaale waaw booy dem ca meeting ba na ko yóbbaale booy dem ca réunion ba na ko yóbbaale waaye a ah, man de jullit laa rek ci tur bu jill jikko yi ñu war a xamee jullit génnee bu ñu ko dee natt ci yow duñ ko gis ana njullit waaw moo tax suñu mag ñu baax ñi loolu moo nekkoon seen coono ñu ni nag kon yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nanu fexe at mu ne ñu génne ko exposé ko wan ay jikkoom wan leen ay meloom wan leen li mu doon doxale ba kenn ku nekk jël ca benn jikko yóbbaale ko te yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daf ni jikko yu trois cent soixante six vertu la mu ne trois cent soixante six vertu yooyu ku ci deewaale benn jikko dajeek yàlla boo demee mu jéggal la dugal la aljanna ah xanaa nit nag lu mu yaafus yaafus juróom ñetti téeméer ak juróom fukk juróom benn fukk ak juróom benn yooyu xanaa war nga cee mën a am benn waaye xoolal Seydina Aboubacar daf ko ni ndax ci ko yooyu am naa ci benn ndax moom bu ca amoon benn rek doy ko mu ne yonent bi ndax juróom benn juróom ñett yooyu nga tudd am naa ca benn yonent bi ni ko ah kulluha fiika yaa Aba mu ni ko ñetti téeméer yeeg juróom benn fukk ak juróom yépp a ngi ci juróom benn yépp a ngi ci yow yow Abu Bakar waaw kon nag ñu góorgóorlu ci loolu moo tax seen maam Cheikh Al Hadj tëral li mu tëral ci guddi yonent bi mu ne ah, ku ñëw dégg boo demee jëfe bu ëllëgee fu yonent bi taxaw saxaabaam ya taxaw fa Cheikh Ahmada Tidiane Chérif taxaw fa man Maodo danaa leen juróomeel waaw mu ne te bu li ma bëgg it mooy ëllëg ku aju ci sama ginnaaw bu ñu demee kenn du la wàññi neen loolu moo tax tabaarakallaahu ah mu tëral gàmm bokk kook ñépp wax ni gàmm nag tiijaan rek moomu ko xaadir rek moomu ko murit rek moomu ko ni ñépp dundal gàmm tabaarakallaahu ah ngeen gis ni it gàmmu saa su ne fu nit nekk ci réew mi bu gàmmu jotee danga dem wala fa nga nekk nga màggal fa juddu yenent bi rawatina nag boo jegee tiwaawan nga daw ba tiwaawan màggalal ko Cheikh Al Hadj yiw wi gën a yaatu gën a tas ci réew mi loolu rek la ci bëggoon mu ni beneen bi ci desit mooy dama bëgg ñëpp xamante su ma wootee gàmmu ñëpp ñëw ki dëkk Saalum dana xamante ki dëkk euh, Waalo ki dëkk Ndakaaru dana xamante ki dëkk Ndar ñooñu xamante jàppante ëllëg bu ñu dajee kenn dem ca réewu keneen dañu mën a gisante dañu mën a xamante mu ni loolu rek laa ci bëggoon moo mhm. taxoon ma doon woo njaboot gi yëpp nu ñëw dajeeg man Tiwaawan ma wax leen yonent bi ñu yóbbaale jikko yooyu tabaarakallaahu mu mel ni nag ah jataay bi li ñu ci bëggoon yàlla defal nanu ko ñu sant yàlla bu baax dellu sant suñu mag ñu baax ñi ñaan yàlla yàlla nu yàlla taas ci seen barke yàlla bàyyi fii suñu kilifa yu baax yi Cheikh Mountakha Bachir yàlla na fi yàgg te ànd ak wér ak ku ko ko yéene sëriñ Babacar si Mouhamadunil Mansour yàlla na fi yàgg te ànd ak wér ak njabootu diine gi yépp damay wax ni ñaareel li ëpp li ñuy wax naan Seydil Hadji Malick ak Serigne Touba maam maarama leen boole waaye li leen boole ëpp na loolu waaw li leen boole ëpp na loolu ndax maam Ousmane mi meññi Cheikh Al Hadji ñu bari yaakaar nañ ni Cheikh Al Hadji Malick rek la am ci doom waaye amoon na doom bu jigéen bu ñuy wax faatima ndax wéyjuru faatima bokkul ak maam Fawad mi meññi Cheikh Al Hadji ndax bi mu dellusee siin dafa takk soxna ca Jolof am ak moom doom tuddee ko faatima soxna soosu bi maam usmaan nelawee mii way juru Seydil Hadji Malick ay magam mënuñu ko woon a takk ndax rafetlu wuñ woon nga takk sa jabar yi rek loola taxoon soxna sa ah tabaarakallaahu yàlla dogal mu dem suñu maam sëriñ bu soobe jël ko mhm. mu am ca gannaaw sëriñ Bousso bi Abdou Bousso jël jël ko mu am ca ku ñuy wax Awa Bousso soxna Awa Bousso moomu moom la Cheikhul Khadim denc am ca suñu maam alxaaji Falilu Mbàkke radiallahu anhu kon ngeen gis ni Cheikh alxaaji Malick maam maaram rek boolewu ko cheikhul xadim te loolu tabaarakallaahu ah moom la ñuy dundal ba léegi moo tax bu mu ngi noonu moo tax sëñ Fallou daf ko daan wax daan wax tuuti ma sant si daan na woo sëriñ cheikh mu ñëw mu ne ko ah, yow nag eh, eh, ci ñi gën a dëgër bopp ci ci doom yi nga bokk ndax damay jékki-jékki rek dégg ñu ne taal nga marché ba te da ngaa war loo dugg ma yëg ko ndax bi ma nekkee ak sa bàyyi lu mu dugg ma yëg ko lu ma dugg mu yëg ko waaw tabaarakallaahu sëriñ abdul ahad jasaakallah xeyran sëriñ abdul ahad dafa ni sëriñ abdul aziz mu ñëw di ko jaale ànd ak ay gani naar sëriñ abdu ñëw yegg si mu ni ko duma la recevoir fii mu ni ko ndax maag yow du nu bokk du ñii mooy tax ñooy tax ñu daje waaye dama bëgg bu ëllëgee nga ñëwaat sëriñ abdu nee na ma dellu ñëwaat nee na bi ma ñëwaatee mu daal di may téye ci saal bi ba guddi recevoir gan yi ba ñëpp dem nee na mu ñëw wéetoog man ci néeg bi ni ma dama bëgg a wax ak yow lu ma dul wax ak kenn ci njaboot gi ni ko ndax ñëw nga fi jaal ma mu ni ko waaw mu ni ko te ñi nga àndaloon li leen boole maag yow li ñu boole ko moo tax ma ne la dellul ba suba nga dellu siwaat nga may ma ndigal loolu dellu siwaat kon loolu may na ma ma wóolu la ba wax la li ma li ma xalaat ci yow ak Serigne Cheikh nee na wax ko la mu ko wax yépp Serigne Abdou nee na ma dellu ba ma demee waxtaan ceeg Serigne Cheikh nee na ca la Serigne Cheikh jàpp pas-pasul ñëw seet si Serigne Abdou Lahad kon loolu yàgg na mm-hmm. ca diggante maam yaak maamaat yi tabaarakallaahu nuy ñaan nag loolu yàlla na ko yàlla dëgëral te yàlla sàmm ko suñu ñëwee fii suñu ëtt la nu ñëw moo tax bu nu fi ñëwee du tàggoo bu nu fii ñëw du nu yëglu tabaarakallaahu suñu wayjur it tabaarakallaahu digganteem ak suñu wayjur wa Cheikh Sidil Muxtaar yal yàlla yokk leeram la leen boole woon ci wëllëre ba mu daan wax naan kii mooy sama rakk ji sës ci mën rëkk te duma rëkk waaw sëñ Abdou naan ko yaay sama mag ji ma uuf te duma domb waaw ñu dëkkee loolu dëkkee loolu dëkkee loolu nangoo naa ci sëriñ Bass Abdul Qadir mu ni ma ba fi ma toll demuk sëriñ Abdou dama koy mettilu waaw ndax daf ma bett waaye dama ci am lu ma metti ndax dama bëggoon sëñ Abdou li ma séqoon ak moom dama doon ñaan yàlla mu continuer rek ba yowmal xiyaam waaw pour wan la ni rek tabaarakallaahu ah njaboot gi benn la maam mi ñu benn benn maam la tabaarakallaahu ñuy liggéey nag ci toolu diine di liggéey ci toolu lislaam ku ci nekk na nga jàppe ku ci nekkit na nga gise tabaarakallaahu waaye bu dajee jotee nag ñoom ñëpp ñu ànd daje ci ëttu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nu ñaan yàlla yàlla nu leen yàlla fayal yàlla taas nu ci seen barke tabaarakallaahu gàmmu gaa ngi ñëw ah nu di ci delluwaat rek di woo ñëpp nag waaw di woo ñëpp dal gi ñu xamee njaboot yi discipline bi tënku gi ngeen gën ko bàyyi xel ndax nag bëri na koo gis rek muy ñëw Tiwaawan man de damay ñëw rek ndax nangam damay ñëw rek ndax nangam damay ñëw ndax diw te xamul ni dafa war a ñëw pour yàlla pour yonent bi sallallahu alayhi wa sallam te kuy ñëw ngir yàlla ak yonent bi nag am na noo war a mel ndax tey jii ku ci président de la république ni woon danaa la recevoir suba balaa ngaa dem da nga defaru da waajal sa bopp am na col ko yoo xam ne ñeme woo ko faa sol waaw xadara yàlla nag fa la gën a yell moo tax nu ngi ñaan ku bëgg kuy ñëw tabaarakallaahu nanga tënku ca yar boobu ca dal googu ci teggin yooyu nga xam ni moom la mag ñi santaane te yàlla bëgg ko ci jaamam may wax ni itam suñu maam yu baax yi ba ñuy màggal juddu yonent bi xam nga lu ñu ko daan màggale alquran ca njëlbeen Cheikh Alxaaji Malick moom maam Alxaaji Rawaxaan Ngom ñoom ñaare ko daan defandoo maam Alxaaji Malick jàng xaaju kaw bi ba mu jeex maam Rawaxaan maam Rawaxaan Ngom jàng xaaju suuf bi ba mu jeex ñu tëj yéene yool yéene ko yonent bi def ko haddiyee ci moom waaye di nga gis ku ñëw gàmmu Tiwaan ba dellu te du jàng alxuraan jaaduwul da gis ku ñëw gàmmu Tiwaan ba mu jeex doo ko laajee loo loo loo jëlee ca gàmmu du la ko wax xanaa lekk yu neexee rek. waaw ah, moom de boisson ya bari na togg ya neex na ñam ya bari na léeg-léeg sama mbokku eh, njaayeen yeeg ndaw ko ndaa yi ah moom dañuy daal di eh, xaabaabal rek waaye ñu waajale gàmmu loolu waajalee ko yar waajalee ko alquran donte benn xisib la donte benn sumun la donte benn rubox la nga ni naa def defiwu bu ma demee Tiwaawan ci gàmmu ren gi daal bëgg naa jàng mosumaa jàng xisib ba mu jeex naa ko jàng ba mu jeex nga jë yéene yool bi yonent bi wala naa jàng ñaari xisib ba mu jeex wala ku naa jàng xaaju kaw bi ku mën it naa jàng sax kaamil bi ndax mag ñi loolu lañ ko doon dundale ñu bàyyi xel loolu itam bu baax a baax a baax déglu it message bi ñu mag ñi di di di jotal kilifa yi di ñu ko wax ci bisu gàmmu waaw te lépp jëm ci defar waaw lépp jëm ci yéwénal sa dund waaw boo fa de jógee defaraat sa dund am fooy teg xam fooy teg sa tànk am yoon woo mën a jaare ba dem raw say moroom kon nag su ko defee surtout yéen ndaw ñi surtout yéen jigéen ñi ñu ngi leen koy fàttaliwaat bu baax a baax a baax ngeen gën ci góor góorgóorlu ah ñëw na ngeen daan ñëwee séentu si barki sàkku si yiw sàkku si leer tabaarakallaahu yàlla na ko yàlla boole defal yàlla yeggale nu ci jàmm ñu ngi sant ñëpp di gërëm organisateur yi ah xam naa li ñu yéene woon yëpp mën nu ko wax ci jataay bi ndax tabaarakallaahu ah suñu mbokk yu baax yi li nu jiital doy na sëkk monsieur le maire ñu ngi lay sant ñu ngi lay gërëm xam nañ ni sa warugar ngay def sax waaye nag yeyoo nga cant yeyoo nga gërëm ndax sa maam Serigne Babacar Sy daf ni woon ah àll day wolof day faral di juum naan àll watu la nawee mat mu ne ahankay mu ne àll mat naa nawe mat ndax àll toll na ni moom te amul mat kon nag tabaarakallaahu ah bu yàlla dogalee ci sa magistère nga ñëw ah xam ni ñii lii sa alal la xam ni ñii say njaboot lañu nga defal leen li nga leen defal faveur bi nga leen defal tabaarakallaahu rëy na ci ñun lool dolli nañu mbég dolli nañu kontante ñu di la ci sant bu baax di la yóbbante cant ci sa wéyjur ah tabaarakallaahu moom mi nga xam ni nag moom la ñu darajaale bis bi mu xam ni it moo ko moom waaw ndax lu Cheikh Alxaaji Malick moom Cheikhul Xadim a ko moom lu Cheikhul Xadim moom Cheikh Alxaaji Malick a ko moom ñaan yàlla yàlla na yàlla yàggal taxawaay bi yàlla na yàlla barkel loo mën ren yàlla nga mën lu ko ëpp déwén nga uuf yàgg uuf njaboot bi yàgg jiitu ñu topp ci sa ginnaaw yàgg sa collaborateur yu baax yi nga àndal ci wàllu municipalité bi ñoom ñëpp ñu santi leen ak délégation bu am solo bi nga xam ni ñoom nga àndal di la yóbbante nuyoo ci xalifa bi di la yóbbante nuyoo ci eh, mbokkam yu baax yi koy jàppale tabaarakallaahu ñoom ñëpp ñu ngi leen di gërëm di leen sant di sant organisateur yi tabaarakallaahu ah eh, dem naa ci burdu yu nekk nag mm-hmm. waaye burdu njaay eh, mbàkke bii mm. musuma teewe burdu bu ne bu ne mel ah loolu nag seen mérite la kon nag ñu ndokkeel leen ci bu baax a baax a baax te bu ma demee dinaa ni commission bi nañ may yebal si fii at mu ne <laughs> toog naa fii ci Mbàkke incha allah yal na yàlla mottali yëpp ñu sant ñëpp service d'ordre bi tabaarakallaahu ñu yor wàllu euh, toxal gi euh, presse bi RTS TFM tabaarakallaahu DTV asfiya yi ak tabaarakallaahu mbooleem organes yi nga xam ne ñoo aju ci mbir mi ñu sant suñu mbokk mi ak wal fajri sant suñu mbokk mi di xaalis Babacar ndax moom tabaarakallaahu ku ne xam na ni lii rek mooy yitteem taxawu xadara bi taxawu kër gi ñu sant ko waaye sant mbooleem asatise yi nga xam ni ñoo ngi fi daje di ay doomi daara tabaarakallaahu ustaz ka mi nga xam ni mu jëkkee kàddu gi waaye xaaji morka waaye tabaarakallaahu xaaji siidi ak mbokk yu baax yi mu ko àndal yëpp ñu ngi leen di sant waaye ngeen may ma nag ma sant jigéen ñi soxna yu tedd yi ñu ngi leen di sant bu baax a baax yal na yàlla barkeel seen mbir yal na yàlla yàgg di leen sagal ndax yéen rek yéen a sagal diine tabaarakallaahu yàlla defal leen jàmm yàlla defal leen sutura yàlla sàmm leen sàmm njaboot yàlla euh, ruuseenu sunu kilifa yi yàlla nu yàlla ruuse sunu kilifa yi yàlla yàlla ruuse réew mi suñu kilifa yi te incha allahu loolu rek mooy am ndax réew moo xam ni ña fa tëdd ñëpp ñu baax lañu xam naa leen xaajim sëriñ Muniru Sarr radiyallahu anhu waxoon ne woon ah euh, naar yi de mën na ñu gën mag magi démb waaye ñoo leen gën yi tey nag te loolu dëgg biir la yàlla nu yàlla tas ci seen barke ah mu mel ni bi nuy ñëwit nu ngi ànd ak suñu rak suñu doomu baay Abdoul Aziz Diène bu suñu baay oustaz Ousseynou Diène tabaarakallaahu yaa ngi koy tudd léegi ci xasidaam boobu mu def ci maam alfa di woon suñu sëriñ ndax moo nu jàngal yar nu nu ànd ak moom tabaarakallaahu ak ànd ak commission bi itam ñoom xaaji du gay ñoom ñi nga xam ni ñoo féete ndakaaru waaye bokk ci lii di ko organiser ci ndigalu xaaju bi Bili Pay yàlla na yàlla fay leen te yàlla yàggal taxawaay bi xaaju Souleymane Guèye jàmbaar yooyu yëpp tabaarakallaahu ñu ngi leen di sant di leen gërëm suñu uh, njabootu bopp yi tabaarakallaahu bàyyi ko ngir tabaarakallaahu ñoom ñëpp ñu sant leen bu baax ak délégation yi fi bàyyikoo yëpp ñu jógee AFEC ñi bàyyikoo ci gox-goxaan yi wër Mbàkke yëpp ñu ngi leen di sant di leen gërëm di ñaan yàlla yàlla bu daje bi nekk suñu mujj daje yàlla nañ koy daje at yu bare baree baree bari mu ànd ak fekkee tal tabaarakallaahu suñu mbokk yi nga xam ne noonu doon bégal ci tagg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ak bàkk maam yi ah ñu ànd ak monsieur le maire ñi nga xam ni ñoom la ñu fekk si ci seen di seeni i mbokk yi ñoom ñëpp ñu sant leen gërëm leen ñaanal leen yàlla yal yàlla wéral baat yi yal yàlla yàggal taxawaay bi ñuy sant ñépp fii daal képp ku fi teew tey yàlla yàlla faj sa aajo yal na yàlla yokk la ba nga yëg ko yal yàlla sàmm la yàlla aar la yal yàlla suturaal la yàlla dotti ci réew mi ay xéewali xéewal yu baree baree bari te ñépp xaj ci ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam barke suñu maam yu baax yi barke bés yu tedd yi ñu toll di bési yiw di bési barke di bésu sutura di bésu fajug aajo zahiran wa baatinan yàlla na ko yàlla boole defal hada wa billahi tawfiq wa axiru daawaana an alhamdulilahi rabil alamin wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. macha allah macha allah. waaw. salaam. mami àll ma toog nee na li kay say. يرها سدفا لدرتي أمينة نقيت عن سائر التهم على نبي والي سلام ربنا دائما عاما الله امين ويتل نانيو وقيل زوجها وهب وقيل وهيب عمها ومربيها بحجره مولدين على نبي والي اجمعين سلام ربنا دائما عام على أمين وتلنا وهي حينئذ أعلى النساء شرفا ونسبة وافتخارا من جدود ممرنا على نبي وعلي أجمعين سلام ربنا دائما عاما سرين بيسي سمام لنا في شعب يوم مثل المختار قد حملت وقال سهل بن عبد الله ذو الوفاء على نبي والي أجمعين سلام ربنا دائما عاما